ñoo ngay xeex xale yaa ngay xeex jàpp mu dóor mu dóor laay lay la la deuxième combat de la soirée Fouta Production eh, xale yi dañoo tolloo sax njaxlaf dóor dóoraat eh waaw waaw dóor fayu ñaf sa lay la la dina ko ñuus <laughs> dina ko ñuus laay dóor na dóoraat jàppante na ma ngay dóor waaw. jàppante nañu ñoom ñaar mën na ko jàppante nañu ñoom ñaar xale yaa ngi noonu maa ngi sax Baye Mass Baye Mass nuyu naa la xale yaa ngay xeex yaa ngi dóor programme bi nag amaguñu ko moo tax mënaguñoo xam kan ak kan nekk ci digg bi fàq na ko abit àtte na salaamaaleykum père nuyu naa la. maa lay fay. loolu sant yàlla. ñu gis ngeen andi seen doom naka ngeen ko andi. Ah, alhamdulilahi rabbil alamin indi nañ ko ci jàmm ak salaam di ko ñaanal rek yàlla may ko ndam bi jaay seen naa ma liggéey la war a liggéey indi nañ ko ci indi nañ ko di ñaanal rek yàlla may ko ndam. digganteem ak daam Souguer naka ngeen ko waajale ci xeex ci wàllum bëre parce que bu ñuy xool gis nañu Dame Souguer dafa mel ni ku xaw a ba pare moo xaw waaw loolu moom xam nga ni ñu koy préparé du luy neex a wax lu ñuy wane lay doon incha allah bu sër at bi suuf leen da ngeen ne am na lu ko waajal. am nga yaakaar combat allah macha allah yàlla rek moo ci des yàlla na ko yàlla may ndam. baax na kontaan nañ sant Serigne Touba rek. tey naka ndam rek confiance lañ ñëwee. naka nga gisee Pokola. waaw mais ñoo doon entraîné loo ci moom dañ koy ndam rek. waaw. am nga yaakaar mu gaaw daam su mi dafa mel dafa wàññi poids de. waaw mais méttiwul. ñu nag moom moom méttiwul incha allah bu ñu duggee ci géew bi li ñu ko a defaral dinañ bu soobee yàlla. baax na far jaayoo. aara kaay kaay daa ma ngoog maalaw ak yooyu maalaw daa mel ne de kaay Babacar Balde ngoog Babacar nuyu naa kii kii firnde firnde la wér firnde firnde. ci loone Ousseyn doom de. naka ngeen ñëwee. waaw ah, sant yàlla rek. barke Serigne Touba ak bu bëri di ñaan yàlla yàlla may ndam bu sedd guy ci kaw jël ma émission booy ñëw ñu bëre. non lay jël kii fi kii fi na lay wër fi na lay wër. naka nga gisee Pokola tey. waaw sant yàlla barke Serigne Touba suñu xel dal na. bilaay walaay war na borom Touba liggéey li ñu a liggéey def nañu war a def yëpp di ñaan yàlla may ñu na ci kanam si kanam waaw. Malaw ci loolu. yaa ngi am jàmm baax a baax. gars yi a gis lan mooy waral loolu. maa bi toog sama ruq rek. gars yi ba léegi ñoom waxagul leer rek. gars yi ñoo ko bëgg a génne si làmb ji. sama du moo bëgg a génne booy ñooy daw. Ah. waaw. booy. ah booy yi daw bëri nañ de. ñu ñëw jël grand bi grand bi daa weex de. maalaw non dañoo war a ñëw ñu bëri nag. boobu comme ñan comme ñan ñoo war a ñëw ngeen bëri parce que man. gis naa benn booy sax xam ko comme moom mooy laaj ñi Coulibay 2 laaj bi am na respect dinaa ko jël daan ko rek loolu dara. kon yeneen booy yi la doon doon laaj ku ci mel ni ay ay ay ay Siteu bu ay Liss Ndiago ñooñu bëree ak ñoom. ñoom xale fii. ñoom bu ñu war a bëree dinañ bëri xale yi loolay problème bi am na fu ma toll si laam boo xam ne am naa ñu ma war a bëree xam nga ko su ñëwee rek bu jaaroo damay bëree. léegi man mën naa laa limal ñaar sa diggante Coly Faye sa diggante ak Tapha Mbeur est-ce que pare nga pour bëre ñaari xale yooyu. Tidiane Tidiane Tidiane ku ñëw ma jël. Coly Faye Tidiane Faye Tapha Mbeur da nga ko ci écart. non Tapha Mbeur bëree ma moom ndegel Babacar maa la dégg nii. mais diggante ak Tapha Mbeur lamb du ko daal. mais ñoo xam ne boo yoo xam ne ñoo a may chance ñu progresser ñoom may comme may mag may na ko chance muy mu am nu mu demee nañ nga may xale yi chance moom it lu am loola rek mais ñun duñ nekk rek du may chance tamit da duñu may suñu xale yi chance la ma duñu may suñu xale yi chance dina nangoo bëre ak yow booy bu am coow la non booy lamb non Tapha Mbeur moo xam ne wax ji moo bëri rek mais lamb moom nañ dem ba si kanam rek dinañ mu leer bu ne boo déggee wax ji daal sa diggante qualifié nga xaw a gën a sawa sax non bu ñu ma jo comme moom xam nga rek comme bu ñu ma mujjee bëre bëre Ada Fass Ada Fass ma xëy na moo mu ngi dynamique ba léegi ma bëgg ko rek. mais qualifié qualifié fi mu toll nii ak ak naxa bi mu nekkee est ce que jël qualifié dina yomb ci yow nag ak yow li ñu la gëjee gis. non man yooyu du problème mën naa bëre rek man moom bu ma bëree rek feeñaat loolu mooy sama problème mais naa bëre rek na ma gars yi tegal ba ma bëree. mën nga sa bopp ci kaw qualifié. fii dama koy feesal yàlla na yàlla jaamu rek ba combat ñëw. promoteur bi koy tëgg laay wax maalaw nag maalaw nag est ce que yi fàttewuñ la nag maalaw. fii mën man ñu ma xol xol lañ si man ñoom ñu mu mës a faatee ñooñu jàppee wuñu victoire ak défaite buñ ma ko jàppee woon kon moom mooy bëre moo du may indi dara ma mooy bëre mu fees lamb boo ñëw nag waa Pikine gépp lay andi déggoo lu ma naa ne musuma bëre Pikine benn baraak Malika lépp lañ may indi na nga xam loolu dëgguma benn gox de lan ngay waa Pikine nañ ko waajee waa Pikine waaw xam nga ñoo ngi ñaanal suñu rakk ci tey suñu jarbaat waajal nañ ko di nga war a waajal lépp pokola di ko ñaanal ndam lu sedd guy da gëm sax loxoy am yàlla ko yàlla defal def na li war a def yëpp da gëm naa si kanam tur bi yàggatul dina wala li mu bu neexee yàlla. kontaan naa ci Ba maa lay fay. tey naka nga ñëw. dañ maa yem rek. waaw. lépp lu may def dama koy def si xel. nga ñëw waa Pikine ak yow topp waaw loolu la rek maa leen ko wan. maa leen ko wan. di ñaan di ñaan yàlla yàlla may ma ndam si kaw Dame Sigane numéro 2 jël bu gaaw. incha allah. da nga yaakaar bi gaaw. xanaa du ma dégg man samay du yàgg de. mais lépp lu may def dama koy def si xel. ndax bis bee laaj. ndax dama ko nawloo adversaire bu ma nawloo la dañ ko yeb yeb ma. ñu ci bàyyi nee nañ kuy kuy digal Pokola da koy wax na tey. moo tax noonu laay def te damay tey Sénégal gi yëpp loolu lañ ma wax loolu laay def. mais daam dañoo gis dafa mel dafa xaw a wàññi poids. a ah, moom la rek man tamit dama wàññi poids waaw sans départ rek sans départ rek. combat bi dina am xeex. xeex ah man daal wax dëgg yàlla moom lépp lu may def si xel laa koy defee waaw. <coughs> waaw. waaw loolu dëgg la lamb la rek. incha allah lamb la rek. waaw. waaw nañ fay nañ la. naka nga andee sa rak. kii mooy sama mbër xam ma maa nekk ci rent DKR ma wax télé bi yëpp seetaan ma dama koy tëgg ba pare foral ko ku bëgg na jël avance am ku bëggum na bàyyi. te noonu doom la. kii man Pathé Baldé moo ma ko dénk. sama lépp kii laa koy def. Pogola Sénégal yëpp xam nañ ni sama doom la damaa bokk ci rent DKR ñëpp xam nañ damaa bokk ci rent DKR mais dama koy tëggal ba pare foral ko loolu fan la am. Pathé Baldé. moo ko teg sama loxo te ku xam paat no ñun suñuy doomu nday lañu waa parcelle ñun ñoo bokk nday ñoo bokk baay maa ngi ciy nuyu waalo sëriñ Ndiaye dégg man daal maa ngi ñëw tey ci non violence loolu laa ñëwee amul bugguma benn supporteru Pikine indi fi benn coow loolu moo ma fi indi tey ma taxawaay tey bu ma demee parcelle jàmm laa fay am kon maa ngi ñaan képp ku may seetaan nekk doomu pikin jàmm lañu ñaan dégg ku yàlla may ndam ñu xam ne noonu leen kay xool mais ëpp xaw nañu ëppante de Farba ak ndigal ndigal añ na ko faax na ko Farba Farba ak ndigal eh laay lay la laa Farba ak ndigal Farba mi affaire la de Farba ak ndigal ndigal la nga koy bëgg a imposer doole di ko añ Farba raso ràcc Farba ak ndigal. Farba ak ndigal Farba ak ndigal takk na ko lum koy def da koy daan ndànk ndànk ndigal ndànk ndigal la nga bëgg a doole day génn abit àtte na wala boog àtte na àtte arbitre bi sifflé waat na Farba ak Ndigal eh da koy doomu daanu moo ngay daw moo ngay daw day daanu moo ngay daw <laughs> eh, Ndigal daan na ko daanu na doole doxul jàmm doole doxul jàmm mu ko dóor muy daw mu daw daaxi ko bul teg li nga ay baaxu la. maanaam yu neex yi. non lii neex. Ousseyn. waaw lii moo yor affaire yi. waaw. tey ban booy nga andi. Saaman laa andi. Saaman. doomu Kër Mbaye Fall bi waaw yaakaaru làmb bi. mais nag namoon nañ la de depuis boobaag léegi kenn gis yow xam ne maa la raw. waaw maa ngi nii nekk samay business quoi. waa yàlla baax na. gars yi dañu wax ci man waaye Ouzin. non wax ci yow da nga bokk ci la. mbaru dëkk laa. billaahi walaahi. Kër Mbaye Fall dañ ma yónni yaa xam ma. fan nga jëm. su ma jógee sunu kër. <laughs> dara. dara. sa rek la mën a sama kër laa ma jógee fii. waaw. mooy sa kër. ah fi ma dëkk kër Mbaye waaw <laughs> fan nga jëm maanaam booy ji booy. fëgale bu ngor nañoo ñu bëre. bilaay. Seydina Mohamed bilaay walaay nañoo ñu bëre. Ousseyn loolu du làmb waxal. làmb du ko daa. barki Alxuraan dafa ne mais booy dañuy teggi. boo amee noo mel man samay longal laa de. te bëreegu ma Ousseyn de. appel est-ce nga koo longal. barke Arxuraan maa ko mun ñaari yoon. double moteur baa ngi sans radiateur. aller retour yaa ko mën. du ma fokk du ma bënn du ma senn. waa ji neen day raxas ba mais man musul génn. damay raxas ba mu set denc ama saw. <laughs> xoolal Pésil Pésil lañ wax ne lu soyoon laay Pésil la ngay xuloo lam koy joxoñ la bëgg mu laal daam su ngeen xoolal Pésil la def xool ko xoolal laay laa ngi noonu. Faisil wàññi na booy bi de Faisil wàññi na booy bi xoolal xoolal xoolal la mu koy joxoon jëlal ma kii daam sugeer daam la mu yoon di ko joxoñ ci làmb lépp tegtal la kaay ma laaj daam sugeer lu muy joxoñ am na am na préparé làmb ba yàq ñee dañuy bëgg coow loola ba yàq sa làmb law lool booy si lum Faisil lum la non Faisil booy la doon waxal rek xam nga booy seen yaram a tàng xam naa booy dafa am lu mu leen bëgg a joxoñ non daa am lu muy bëgg a joxoon mais li làmb rek ñun ay booyam lan ñun ñëpp benn lañ ndax ndam li génnul Sénégal nga xam ne ñun ñëpp ay booyam la ci dajal ñoom ñaar ñëpp mën na conseil ci biir géew bi mën naa conseil kii mën naa conseil ba kii ci biir bi non non mais fi mu doon ni Pokola lay conseil waaw mais dara na xam ni don bu conseil daa war a conseil Pokola Pokola mais bu conseil kii dafa war a conseil am na droit nag moom la ande mais na ñuy dañuy conseil suñu mbër naka ngeen andee daam non daam dañ ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam rek vraiment liggéey na ci combat lu war a liggéey waaw jox na ñëpp cër parapa na ko ci mbokkam ànd na ko waa écurie ñëw yàlla nag moo yoroon ndam yàlla mi yoroon ndam yàlla yàlla may ndam. mais dama gis dafa mel ni ko xaw a wàññi poids bi. non wàññiwul poids entraînement yi métti rek wàññiwul poids de. dafa liggéey rek entraînement mu jeex. waaw mu jeex dafa liggéey ko est-ce que bi tey dafa mel ni ñoo tase ci digg géew bi de combat bi est am nga ci yaakaar mu gaaw. noo yaakaar bu rëy sax yaakaar bu rëy moom taxawee lañ am yaakaar waaw ba nii arbitre di yëkkatee suñu loxo. tiitaloo ko ci bëre bi ci digganteem ak booy. non tiitalu ma ko ci lenn muy ci muy ci xeex muy ci lépp tiitalu ko ci. Pokola ah, nee na ñëpp nee nañu dañ koy wax teeyal. non mais ku andi sa mbër na ko wax teeyal sa mbër doo ko andi naan ko yàkkamti di para paraxi in faut nga teey lamb teey la laaj mais dangay ñëw rek damay jeexal lamb ci ci ay minutes dangay teey xam xam ki ngay fekk si sa morom adversaire ba entraîné nga entraîné yéen ñaar ngeen di bëre il faut nga teey ca kawam mais doo ñëw di yàkkamti ca kawam. kontaan naa ci yow. kaay jël daam. daam bëgg naa. maa ngi lay ci loo ne. sant nañ bu baax. tey eh, nan nga ñëw. alhamdulilah ñaan yàlla suñu borom suturaal moom may ma ndam. waaw. combat bi lu yomb moom yàlla xam nga ne amul ci làmb wax dëgg yàlla. mais yàlla yàlla suturaal defal ñu ndam incha allah. la gis dafa mel ni da nga xaw a wàññi poids. waaw dañoo liggéey rek ak suñu rek. lu làmb rek dañoo liggéey bu baax rek. waaw parce que làmb ji daa laaj quoi damaa bëgg nga xam ma tey yow xam nga ko mu ran xam nga ko mais yow damaa xam ma tey incha allah si kat jaan gi day dog tey la la mooy dog da nga faa dugg ñaari yoon am fa ñaari victoire nee mbuumu jaan gi tey lay dog tey lay gën a continuer incha allah tey la ñuy dégg daam su si làmb ba si kattanu yàlla ak mbaaxam dina yàgg incha allah rabbi waaye ñun daal liñ liggéey nañ ko wane bu soobee ñu ngi ñaan yàlla suñu borom sutural ñu may ñu barke alxuraan maa ko gën a saf ah. waaw. tey naka nga ñëw. tey moom bis bi lu mu laaj rek moom laay def incha allahu rabi di ñaan yàlla suturaal ma may ma ndam mais lu mu laaj rek bu laajee bakkan bi rek moo loolu ànd ak sama jarbaat sama doomu ndey Talfa waaw moo ma gunge si làmb ji nag waaw wa fas yéene fi wane lu leer naa ñu dem ak moom incha allahu rabi doo ko dem. waaw Cambérène nag lay ñu ngi may xaar te dañoo maa yaaxam si Cambérène Pikine fu ne tey warul yomb. baax na incha tal nuyu waaw fay naa la. ci loone waaw ah, sant yàlla bu wér. Eh, ñu gis nga andi nga andi sa grand andi sa lépp naka nga ko andee. waaw sama nijaay la sama toos la. waaw na ma andi ko quoi waaw. di ko ñaanal ndam nag di wax adversaire nañ jël avance bi gaan. ku mel ni kan. Ah, ku mel ni ay Nandi Fall. Thiat Daouda Fall. waaw kii sax bu bëggee ñu santaan ñi ma may ko xaas. fi diisul man dara diisul si man parce que li mooy sama métier quoi. waaw moom laa am quoi mais bu ñëwee bëre. mais Thiat Daouda Fall loolu moo gën a logique instant yii nii. te digganteeg Thiat Daouda. waaw bu neex la nekkul ma koy dara waruma ko sax laaj mais dañoo war a bëre waaw. saba la. daa gis ma taxaw yow mu woo. moom ñeme na xam nga moom moom sax garaawul que ma saba la. waaw wala ñu jox ma Agogo Agogo. Agogo du bëgg yow. mais ma bëgg bari na. Thiat Daouda Fall man ak moom làmb ju neex la combat. nangu lool. waaw ay morom la loolu lamb neex la abandawun dara waaw te bu dee mbooloo maa ko bu mbooloo fuuf bu ñu bëree mën naa ko yokkal sama kase. mais caat neexul deret de. maa gën a naka di deret neexul géemeer baa ngi nii. est tëj leen ci digg géew bi yéen wóor na. fii bu ñu fi tëjee man ma tëj arène nationale bi man mbëru àdduna bi laa du ma mbëru koñ du ma mbëru ay quartier yi mbëru àdduna ñëpp mooy safoo mais dama war a bëre moo ak ñi ma war a bëreel parce que tey jii ay combat grand contre petit bi dafa bari nañu boole ñun xale yi ñu bëre. budul moom kan. budul moom bari na fi. ñu mel ni ñu mel ni ñing bu bëggee ma may ko xaalis. day freiné xale te nga ban wës wës ban. jàmbaar non wës jàmbaar mooy loolu champion la. mais saa mu joobaat rek. toppaat si kaw rang bi non wës jàmbaar moom saa moom bëgguma ko quoi wax dëgg yàlla. nekkul question de dara nag moo ma jël si làmb mais a bëgg wala naan di faal. wala bébé Birahim man ñëpp laay bëreel waaw. ci bébé Ama bu Ama. bëri miinu ma ko quoi wax dëgg bilaay walaay waaw. mais même Petit Niang bu bëggee daf ma may ko xaalis ah. waaw. comme que ñoom gëj nañ bëre <laughs> ay lamb rek laa la wax de lu dul lamb waaw. sëñ baax na. géew bi bi dox ci diggante daral ak Seras. <laughs> maa ngi nuyu ñes gànn gànn nuyu naala la nga foofu ca daral ba soo dikkee Seras maa ngi fay ki nga xamante ni ni mooy Lamine Sox moom ca jaay yàpp ba la ne eh, ñaari yaa ngi noonu mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi kenn kaa ngi tudd dara kenn ki tudd Ama Seras. baat bi naqari ba xam. kenn mësul gis lii loo naa ko gis lii. dara la ak Ama Seras. waaw Ama Seras bi moom ak jatam bu yàgg bii. loo xam ci diggante daral ak Seras kii yee tudd daral kii yee tudd Ama Seras. ah dina doy waar daral ak Seras daanaka benn la rek. benn la moo. da Seras daral rek. man xamu lu leen boole. lu leen boole doy na waar de. Ama Seras am na benn avertissement. daral la ñuy jàkkaarloog moom. waaye daral mi mel ni daaw moom ma looloo ma jaaxal. daral daral a ngi dox ci kaw Ama Seras mais daral mi neexut a de. daral cokkaas na léegi daral Oma Seras daral cokkaasaat na daral Oma Seras daral dooraat na eh daral ni muy daral Oma Seras eh daral doon na ko léegi Oma Seras fay na ma ngay daw eh daral la ngay daw da koy delloo daral day daw. cey làmb ji taxawlal daral ama seeraas mais seeraas ak daral lan moo leen boole ba ñu war a mën a bu metti bi ca deret ja lañ bokke ñoom loxo baa su meeku bi mu ne bi dana karaj su meeku daw rek la mën a def mënul def leneen bu doon ci digg géew bi sax du ko jàpp mais mais mais daral mi neexu ta ñeme de nii mu ko gisee nii <laughs> ma jaaxal deraat di seeraas daal ak daral ca nag ak xar ak gileem ak lañ bokk. tax ñooy noonu ci digg géew bi ndax la ngay dem ñoo ngay delloo loxo ba loxo ba daa simeeku daral Oma Seras ñoom ñaar ku ci nekk am nga benn avertissement daral am na benn avertissement Oma Seras am na benn avertissement waaye dara lewaatoom bii day dóor de xoolal rek xoolal léegi mu dóor daral Omar Seras daral Omar Seras dóor na daral Omar Seras daral dóoraat na daral Oma Seras daral a ngay xeex ak moom daral baax duñ la dóor nga daanu. ku mënoon a da koy door mu daanu. kon Oma Seras de. waaw woon ginnaaw. waaw Oma Seras. bu mënoon door da koy door mu wàcc. parce que dèjà kee bëgg na dóore mais ñemewul ku ko dóor. gis nga ko jeexal loolu jeexalu ko buñ dëggalee seen bopp xeex dóor mu daanu. dina daral amul garde. amul garde ñoom ñaar ñëpp a jiyaar dóoral ma dóor bu dakkul dóor mu daanu am. na bañ a dakk rek gis nga da koo teg pression instant yii nii te moom tamit rus naa daw moom deral rus naa daw te Omar Seras boo dee xool ci taxawaay moo ëpp gabari mais xaw ma moo ëpp doole Ousseyn am déet. mais daral mi bu ma koy xool dafay mel ni mbëru yàgg yooyu la may jox. ah ancien combattant lay nu lool de parce boo ko xoolee da nga naan dara ak mbër nekkul ci moom parce que sew na mais mën naa nekk sew diis mën naa wow comme genre boo Dakar yi door na ko. boobu dal na de bu loxo bi su meeku lengu neex. da nga daan na bu ràmm la nag yee koy daw waaye daw leen. takk nañ ko da koy daan. bu ko dammul rek mu baax. bu dee gaañu ko rek baax na. doole doxul jàmm. da doole nag. fuuf. xoolal combat bi dama ko jëlee avec plaisir. waa Seydina Mohamed. ànd see course bi. oh. course na la fay. waa Seydina ak Seras lan moo leen boole. waa kii. xar yee ñu booleeg nag yi. waaw moo ñu boole. mais barki Seydina Mohamed. kuy compétir bëre dóor. jaxaw siin pataar laa ñaar. benn combat jaaxal

jarbaatam laa ma ànd ak tamit samay xarit ak ay ak ay jarbaatam tamit ñu ñëw euh, représenté ko fii incha allah waaw. waaw bi moom macha allah nee naa leen foogee wu ma ko woon nii bout si. ba pare moom it tamit nit ku baax la moom buubu moom mooy Fouta production ba pare tamit ñoo jànganoo foowandoo depuis Fouta instant bi tam dajee nañ fii ñu nekk ay commerçant moom mu nekk tamit producteur dañu mën jàppale rek jàppalante liggéey incha allah incha allah jërë ngeen jëf merci beaucoup. nga ñuy wax. waaw xanaa tey di kontaan rek. di kontaan ci ki nga xam ne moom mooy boobu si euh, bés bii mi nga xam ne tey moom la ñu tuddee ñu koy rafetlu jóge Grand Yoff ànd ak sunu délégation su may mbokk su may xarit ñëw pour fi teewee bés bi en tout cas di ko rafetlu di wax ne yàlla nañu yàlla may incha allahu rabbi ñi fekkee ko ay yeneen i édition yeneen i édition waaw kontaan nañ torop gis na nga ànd ak ki nga xam ne moom mooy Amadou. ñu lay ziar ñu ngi lay ziar ñu ngi lay di kontaan ci bis bi rek di ñaan yàlla na ci jàmm yàlla def jàmm merci. c'est bon. waaw maa ngi leen di fay di leen ziare di leen sant bu baax ci seen taxawaay. tey ñu jël bis bu rëy duppee la ko yaakaar naa ni tali maam jaara jàmm ko mën na jàmm ko si kàmbaaw bi yëpp ñëpp topp sa ginnaaw ñeen ñi toog si kaw tribune bi ne Pape Gueye fi xaar donte suñu mbër bëri na ba ñibbi waaye dañ koy xaar ba mu ñëw ban satisfaction nga am ci lool waaw satisfaction bi mooy sant yàlla bu baax parce que làmb ji tey sama kilifa sama xarit maam Gana Kebe dañ ko tuddee mu jël cër bi delloo ma ko pour ma ñëwal teewal ko ci stade bi ci turu faj mébétu askan bi Euh, loolu moo waral sama teewaay ànd ak samay nit ak samay dëkkandoo ñu gunge ma wax dëgg yàlla muy waa Fass Mbao ak waa Kër saar ñu ànd ak man di leen ci sant bu baax ak sant yàlla daal ak kontaan ak xool bu sedd. ñu jëm dal big bi am solo muy le 31 juillet mi élection législative yi ku la xam na nga xam ni dangay bay béy sa waar bu am solo ci commune Diamaguène Sicap Mbao noo koy waajale ak lan lañ mën a xaar waa ñu ngi koy waajal bu baax di ci sant yàlla di ci déglu aussi kilifa gi ci àndal. fépp fuñ joxoñ rek ñu ànd ak moom foofu waaw. pour le moment daal Pape Gueye demagul fenn. non Pape Gueye moom yooyu moom fii tey du affaire politique quoi lamb moo ñu fi indi. mais njàmbaas yàqul sër. non mais loolu wax nañ ci bapare pare quoi. Ah. waaw <laughs> Ama fay nañ la. loone ñooy sant yàlla bu baax. waa mel ni amateur bi. sama jarbaat sama deret boo ko moom écurie nekk si écurie ñun ñàpp di ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal Pokola tey moo tax ñun ñëpp ñu ñëw fi. mais tey lan nga yëg en nga ñëw sa jabaat bëre nga toog ci kaw di ko seetaan. waaw non yàgg na bëre ma ñëw toog di seetaan nekkul surprise si man comprendre nga dañ koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm rek. dafa mel ni diggante Parcelles Derby Parcelles Pikine dafa mel ni moom la ñëw renforcer tey. non non du Parcelles Derby parce que ñoom ñaar ay dañoo war a Parcelles Pikine Derby la. non ah, man pour ma jàpp du mu bu ay mbër lañ dañoo war a bëri rek bëre nekkul dër bi parce que am nañ ay supporters Parcelles waa Parcelles tamit am nañ ay supporters Pikine kon nekkul dër bi. sa diggante Modou Lo ak Modou Lo ak Ama Baldé du dër. non du dër en tant que ay athlètes la rek ay sportif war a bëre bëre nekkul dër bi man pour man boog jàppee wu ma ko dër bi. combat boo xam te mën na def deux ans trois ans mënul taxaw wala boog mënul leen a sant bëre nga nëkk dër bi Ama Baldé. non combat bu tëla rek pas ah, pas combat dër bi parce que Modou Lo mbër la mbër laa sama adversaire la man damay adversaire laa ko nan nga jàpp ne moo dëgëral combat bi. non dara dëgëral suñu borom suñu borom moo ko dëmbee ni moom jàmm ak pexe bi yàlla ak dogalam def nañ suñu pexe lu ñu war a bëree yàlla suñu borom moo ko dëmbee noonu dañuy sant yàlla bu baax a baax. toll ci lan nga taxaw da ngay bëre euh, Modou Lo wala da ngay yi nga xamante ne bëgg nañoo bëre yow pour nga bëre non libéré nañ ma bu yàgg libéré nañ ma ay trois mois si ginnaaw waaw pour ma am beneen combat nekkul mooy loolu xam na àlla laa maay déglu promoteur yi ku pour sama combat rek pare naa pour bëre bi war a bëreel. mais loolu est ce que wóor na Modou bu xëyee suba suba ne noppi na nag nooy waaw ñu bëre rek ñu bëre parce que ay ay ay mbër lañ xam nga laa ma nekk suñu métier bu ñu am beneen métier bu dul laam bu doon suba suba tamit pare nañ. mais ak wàccaay bi ni mu yàggee waaj mu yàqu di waaj mu yàqu est ce du la xaw a handicapé wala mu découragé loolu. loolu dara xëy na bu ñu waajul woon mun nañ yolomal entraînement yi wala dara loolu dara bénéfice la rek ay ndaw lañ xëy na sportif moom dana war a def compétir dana war a bëri loolu la rek waaye lu ñu waroon waajal waajal nañ compétir rek moo ñu dese woon comprendre def defuñu ko loolu dong la. mais nekk xale toog 3 ans bëri woo morom di bëri di daan ñi di bëri di daanu nga taxaw fi nga taxaw est-ce que du am lu mu handicapé ci sa carrière tuuti. non non yàllaa loolu ndogal suñu borom la moo jagle ne am day toog 4 ans bëriwul bu sama pexe dinaa bëri waaye yàlla suñu borom bu baax a baax xëy na moom bu ñu ko teggalee rek ñu yoon eggal suñu yoon sa diggante ak Lac de Guiers sa diggante ak Gris Bordeaux lan nga ci wax gannaaw fi mu toll nii moom Lac de moom dafa mel ni grand zil moo bëggul làmb ji sa diggante ak Lac de Guiers wala Gris loo ci wax. non ku ma làmb boole rek maa ngi pour champion yëpp képp koo xam ne war naa bëri moom yàlla boole suñ boole rek bu promoteur d'accord rek pare naa pour bëri. Mm-hmm. combat Gris Bordeaux Balla Gaye loo ci wax. waaw di ñaanal yàlla Balla Gaye yàlla suñu borom defal ko ko ñaanal jàmm du ko ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ñu ngi yàlla ko suñu borom defal kontaan naa ci. waaw jërëjëf. jërëjëf Sokh nuyu naa la. ñoom Sokh jàmbaar maa ngi lay fay. ci loone lépp jàmm kay. daa mel ni da nga ñëw seetaan si. waaw waaw non rakk mooy bëre. ñëw ñaanal ko suñu borom defal ko ndam loolu rek moo ñu fi indi ah waaw. Ama Baldé dama ko laaj léegi parcel Pikine derby mun ma Parcelles Pikine du derby. non mun na nekk derby mun na bañ a nekk derby man li ma gëm mooy làmb la rek mooy li may wax chaque jour rek parfois say say làmb day féete ci benn gox. nit ñi bu ko jàppee dër bi ay làmb la rek mun ta weesu làmb xam nga tey mun nañu xam combat sog moo tax sog yi dem ba féete parcelle Pikine looloo tax ñu bu ko def dër bi mais Pikine dër bi la ak ñëpp géejawaay dër bi la ak ñëpp parcelle dër bi la ak ñëpp parce que làmb la làmb bu nekkul dër bi du neex comprendre nga peut-être loolu moom moo tax mais lu wér da wóor mooy làmb bu ci mënti nekk dër bi rek yàlla na jeex ci jàmm ak salaam mu bañ a jeex ci ay nit ñi bañ a jël dër bi boobu noonu di ko doxee di ko waxee na yem ci làmb ji rek. dama gis tamit sa rakk dugaat bi parcelle muy soq bu ndaw jël petit lot lan moo ko dugal ci petit lot nga génn parcelle moom mu ñëw dugaat parcelle diggante ma petit lot lu waral lool ndax bi ñuy gis ñëpp annonce bi ci Modou Lo lañ ko gisee moo annoncé ne euh, petit am na combat moo soq bu ndaw combat boobu nan la dikkee. waaw mais Modou Lo moom peut-être moom noonu la mën a communiquer rek ku nekk am nga droit waxee nu mu la neexee di man li ma gëm mooy. soq bu ndaw sama raq la Petit loo sama raq la te ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ay dër bi buñ ko dugal ci bopp booy parce que ñoom ay booy lañ làmb xale la bëre ku ci daan sa morom yàqalu la dara ci sa yoon da ngay dem préparé wu jëwaat rek xam ne yeggaguñu fenn segam ñun ñii ñoo yeggagul fenn waxumala ak suñuy raq kon ñoom ay booy lañ te ñu ngi góorgóorlu yal na leen yàlla defal jàmm sama raq laa am droit ñaanal ko muy soq bu ndaw maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko mais Petit Lo tamit suma rakk la comme ni Sokh bu ndaw nekkee suma rakk ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam ak wér ba bis ba yàlla may Sokh bu ndaw ndam loolu laa am lu ma ciy wax. bu gisee Sokh bu ndaw bi ngay waaj a préparé yaa moom yéen a àndoon naka nga gisee état de forme am ak préparation bi mu nek non Sokh bi tam ñu gis ne dafa jege. Sokh bu ndaw moom préparé yëfam la ndax man heure bu moy préparé maag moom ñooy préparé ndoo te lamb yi ma mës a préparé yëpp ma dem maag moom ñooy ànd kon moom préparé moom jaaxaluma ci moom. te moom bu ñëwee dafa nekk ci ay loxo écurie Fallaye la nekk ñun amuñu ci moom benn responsabilité. nga nekk xam sa cosaan moom mu dem écurie Fallaye Baldé lan moo waral parce que ñun ñëpp xam sa cosaan lañ nekk jët li nekk xam sa cosaan ma nekk fa te am nañ yaakaar ci Zil Baldé écurie bu Ama Baldé nekk Zil Baldé nekk fa. comprendre nga. waaw maa ngi kooku sama la moom. waaw comprendre la waaye kooku man moom wax dëgg fa neex yàlla bi muy dem écurie Fallaye ama moo ko jël si écurie xam sa cosaan yóbbu ko foofu comprendre nga te bi mu fa nekkee tamit rëccuwuñ liñ fa nekkee ndax mu ngi entraîné te bëgg na li muy def te gëm na ko te ñi ko yor tamit ñu ngi koy encadré kon ñun amuñu si dara ñun liñ jaam mooy mu am combat ñu ñëw taxaw courage le bras di ko ñaanal mu yàlla may ko ndam. mais bi est-ce que du ko bëreel. non jarul mu ma koy bëreel moom yoonu làmbam lay defar carrière man am naa suma carrière am naa sumay adversaire maak moom bokkuñu ay adversaire moom xale la moom buy bëre boppam lay bëreel. pour yàlla def ko champion suba combat bu am important lay bëre ci carrière am nag. boo koy xelal lan nga koy wax ci combat noonoo lamb non xale la amul lu ko koy xelal na ñëw li nekk ci xelam rek mu def ko na def yëfu xale xale day def yëfu xale xale kenn du ko calculer loo mbaa nga naan ko lii ngay def wala lële xale la te mu ngi entraîné te xale moom bu nangoo entraîné rek bu ñëwee ne ko defal li nekk sa xel man loolu laa gëm am na écurie bu mu nekk ñoo ko encadré lu muy def ñoo koy def loo waaye man li ma koy wax mooy xale nga. lii foo la dong jàppee ko contact boo ñëwee contactal loo suñu mborom may nga jël mais maa ngi koy ñaanal ndam bu sedd guy ndax suma raq la te ku sori ci man la te ku sonn man la yee. kontaan naa ci jaajëf xale yaa ngi ci digg géew bi. Maar ak Garbaase. arbitre bi sifflé na maar moo ñu féete à moo ñu féete maar ak xeex na nu jàppante maar takk na ko lu mu koy def du koy tël maar Garbassé fàq na ko ma ngay dóor maar Garbassé ñaar xale dañoo xaw maar Garbassé Maar ak Garbassé Garbassé ñoom ñaar jàppante nañu Maar ak Garbassé Maar ak Garbassé Maraga Basse Maraga Basse jag Yaraga Jabali Maraga Basse Maraga Basse tol eh base ñoom ñaar a ngi noonu Mara Garbassé takk na ko daanu ndànk maar Garbassé eh da koy daan da koy daan wala daanagu ko Garbassé maar a Garbassé ñoom ñaar a nga ca ba léegi ñoom ñaar ndeysaan lamb nag bu tollee fii gën ngay dégg ba ayo takk na ko na ko ndomba penalty jeex na jeex na maar daan na Garbassé maar daan na Garbassé maar daan na Garbassé maar daan na garbaase euh, xarit suñuy àndandoo suñuy mbokk pour ñëw lii nga xam ne moom la Fouta production tuddee ñu muy doon lu ñu rafetlu donc am ci yaakaar bu baax a baax moo tax ñu ñëw fii nii tey d'habitude nag comme ni ma koy waxee chaque jour ñun duñ ay amateuru làmb mais tey lii tax na ñi gën a am pas-pas ci làmb gën a encourager jeunes yi pour ñi mën a nekk ci làmb ci li nga xamante ne moom mooy parce que seen njëriñ la. kon ci seen euh, li nga xamante ne mooy teewaay bi am na solo lool mais ñoo leen jàppale làmb ci làmb ngeen di bokk. waaw waaw moo tax nag ñi gën a teew ah mënoon nañ rek yónnee mais dañu préféré teew pour xam li nga xamante ne moom mooy xew ci làmb ji mais rafet lu bas bi parce que ki ñu ko tuddee sunu xarit la sunu nit la sunu lépp la daanaka dam naa mënoon na ko tuddee keneen rek mais terewul yëg-yëg boobu mu ci am mooy waral tey ñun ñëpp ñu teewee ko def délégation bu toll nii ànd ak suñuy kilifa ak suñuy nga xam ne ñoom la ñuy àndal ah wax dëgg yàlla ñëw ci bés bi. kaddu yi am na accompagner suñu suñu collègue suñu xarit El Hadj Omar ci bis bu rafet bi ñu ko tuddee di féliciter di ko féliciter di féliciter aussi promoteur bi boobu muy boy bu bien bu dëkk Grand Yoff bëgg ko xam di di di euh, participer ci développement bi voilà. tey nooy seetee jeunesse bi ñëpp génn di suivre lamb bëgg lamb lool lan ngeen accompagner promoteur jàppale ko tamit ci côté li nga ne nii ci côté làmb. waaw mais c'est tout à fait normal dans la mesure où que làmb sport national donc euh, beaucoup jeunes yu bari dañ ciy identifié wu porteur de développement la parce que kuy dem làmb di bëre ji wala am combat nit ñu bari dinañ ci mën a jëriñoo donc lu baax la ñu ngi koy rafetlu vraiment di ñaan mu yokk quoi incha maa ngi lay nuyu. di bu baax a baax. sant gërëm waaw ñu leen sant leen gërëm. tey sa taxawaay tey ci li nga xamante ne Fouta bisam bi. ñu gis leen si ngeen daal si ñëw tey lan ngeen yëg. waaw tey dañu am kontaan bu rëy rëy. tuddee su nga xamante ni tey mooy sunu kilifa. moom mi nga xamante ni tey moom moom bergerie Galoya. moom mi nga xam dañ ko boole ci parrain tey bis bu doon ñu lu ñu rafetlu di si kontaan bu baax a baax. di wan ne bés bi borom bés bi tamit nii la mel. ku xam abukan xam euh, ni muy def ak ni mu fu mu yóbbu njur ak fu mu fekkoon njur tey mu am lii euh, ñëpp xam nañu que tey mérite la si moom waaw. ci côté li nga xamante ñëw tuuti rek ci politique bi ah au niveau Guédiawaye yéen ñi nga xamante ne tey yaa ngeen ak Karim Wade ban tax taxawaay ngeen ciy def actuellement yi waaw waaw Guédiawaye euh, wax dëgg yàlla euh, ak yeewi bi ak wàllu bi ñu ngi ci def liggéey bu am bu am solo. di wax ne ñun Guédiawaye. ñoo ngi ànd ak ki nga xamante ni tey mooy monsieur le maire Ahmed dara moom la yàlla def tey ñu jiital ko ànd ak sunu euh, jigéen bi nga xamante ni tey euh, moom moo koy jàppale mooy euh, maire Khady tamit dem liste nationale Waré Sarr tamit def dem liste nationale Ndeye aussi mu doon sunu jigéen boo xamante ni tey moom la ñu jël tànn si wàllu muy jàppale ki nga xamante ni tey mooy Ahmed Aïdara donc di wax ni daal Euh, le euh, actuellement ñu ngi si liggéey bu am solo solo te yaakaar nañ ni euh, le bisu le 31 juillet géejawaay dinañ ñu dinañ répondre yeew yi incha allah rabi am nañ si yaakaar bu baax a am nañ si yaakaar bu baax a baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci. ñuy déwénati. waaw ñu ngi la koy delloo baax a baax. yàlla may fekk ñun bare bare bare. allahumma amiin barki sëriñ Muntaxa Mbàkke. baal nañ ñëpp di baalu ñëpp ak di ñaan ci réew mi jàmm. di waxaat ne doomu aadama yi nañ suturaalante sutura moo tax yàlla sàkk guddi sàkk bëccëg bu ko neexoon def lépp ci leer sëñ Abdoulaye daan na wax naan ku fen dala neex kenn ku nekk xamal nga sa bopp loo xam ne waxtaan du neex ba nga nettali ko kon nañu suturaalante rek te yàlla tax ndax àdduna amul solo ay bi jàmbur yi ñuy muri di xaayu sutura doomu arama yi kenn bëggul ko xaayu sa sutura kum ci dooneen ku la jegee doo bëgg ñu xaay suturaam kum ci doon sa bopp doo bëgg ñu xaay suturaam kon nañuy suturaalante te nëbbante ay bi te defaraat lamb nañu defaraat lamb defaraat toogaay yi dellu waxaat ne CNG encore une fois écran bii na ci waa lamb jóg wala ñu yor seen caméra bopp recours yi mën naa bañ a ni ñuy def ligue simple ñu koy def ci ligue avec frappe saisi yi ñuy yàq ni yëpp yooyu koy indi bu site amee ñu xool ko ñëpp gisandoo ko écran bi tàkk ñëpp xool ku sa mbër daanu da xam ne daanu na ñaar ak ñett duñ problème du am waa nañ ñu dimbale ngir yàlla parce que lamb la xale yi lamb lañ am moom la ñuy dund des fois am noo xamante ni arbitre yi lamb erreur am fi booy bi ñu ñibbi xool bu naqare la ñuy ñibbee léegi luñ dab ci yoon yi dañ koy yàq mais booy bi ñu ñibbee mbégte luñ def dara nañ koy defar waay jërëjëf Serigne Touba jërëjëf. jërëjëf sa Touba sama waay la des. mbokk ngi noonu di laaj ay jugeem Dial Diop ak Fit arbitre sifflé na Dial Diop Gor Fit Gor ak Dial Diop Gor Fit moom la jaakaar lool Dial Diop moo ñu woon ginnaaw combat spécial baa ngi noonu. eh ñoo xeex góor fit lu muy def nii góor fit ak Dial Diop Dial Diop góor fit Dial ak góor fit góor fit moo wan ginnaaw Dial Diop la ñu jàkkaar lool léegi Dial Diop ak góor fit Dial Diop dafa may xeex bëre ko gënal waaye góor fit Dial ak góor fit Dial Diop ak Go Fit dafa bëgg jàpp jàpp na lu muy def Dial Diop Go Fit nañ saako Dial Dioba Góor Fit Dial Dioba Fit góofit ñoo ngay xeex jal jooba góofit eh, góosa mbi góofit ak góosa mbi ah góofit fàq na ko góofit fàq na ko war na ko ndomba da koy toog na góofit daan na jal góor fit góor fit wër ndombo bitti ko fitti mu toog Pokola a ngi noonu di sotteeku am na lu mu sol Pokola ngi noonu di dem ci diggi géew bi ñëpp a ngi wax ak moom xolo Boy Jules Pokola wa ngay dem moo noonu di dem ci diggi géew bi Adama kan dem ci Dame Suger Pokola ngi noonu di dugg noonu nekk noonu ñëw na ci moom déggal góo daam. yàlla na dew jëkkal ngi noonu daam pare na moo ngi ca dernier bouteille la ñoo ngi wax ak moom waaye Pokola dugg si na ci diggi géew bi daama ngi noonu ci mukaal yi di def dernier bouteille yi daam Dame Suguer numéro 2 moo ngi ci dernier butéel yi Dame yaa ngi noonu di dem ci diggi géew am na fas bu mu jël lan lay def ca fas ba. dox ci diggante Pokola ak Dame Souguer numéro 2 ñoo ngi gis Jules ci biir Pokola ak ci biir géew bi Dame Souguer ñu koy sotti gàllaaj ngi ci biir Neymar. guerre Dame su guerre ngi noonu Dame a ci préparation yi ba tey Pokola noppi na Dame noppi na waaye Dame ba dafa mel ni pareegul am na lu ñu koy andi laatal ci diggi géew bi wala boog lu nu wax Thiam Souguer daam am na benn morso bu mu teg seen diggante Pokola am na lu mu siw Pokola suuna benn sunguf Pokola am na benn fas bu mu yor teg ko seen diggante daam yëkkatiwaat na mooso bi tegaat ko seen diggante Pokola yëkkatiwaat na fas bi tegaat ko seen diggante Pokola daam sugeer ar bi baa ngi laaj ay jugeem journée photo production daam sugeer wàcc na il est 19 52 dimanche 17 juillet Pokola cokkaas na léegi Dame fayu Dame Suguer Pokola Dame Suguer moom la ñu jàkkaarlool Pokola moo nu woon ginnaaw eh dóor ñoo ngi dóorante waaye benn dalagu ci Dame Suguer Pokola Dame Suguer moo xaw waaye wàcc na ba Pokola. Pokola nee ñëpp ne dañ ne ma wax naa teey Pokola Dame Souguer ñaar xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi booy xool mbokk yi seen taxawaay daa mel ni ki nga xamante ni ni mooy Pokola moo xaw ëpp tuuti laf Dame daw na jël dóor eh ñoo ngay xeex ba doomu daan du ci am ñoo ngay xeex dóor na ko kaaw na eh Dame dóor na ko mu daanu ee Pokola doon na mu daanu Pokola doon na Dame mu daanu Dame Sougué dafa xeex Pokola ko dóor mu daanu Pokola ko dóor mu daanu lay léeg-léeg laa eh, oh. Pokola Dame Sougué door mu daanu Dame Sougué Pokola door mu daanu Pokola door na Dame mu daanu Pokola dafa forcé xeex Dame Sougué daa forcé xeex bi Dame dafa forcé xeex xeex bi Pokola a ngi noonu